Adama Bop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi lay fay. nga yor kàddu comité national de gestion de lutte muy CNG euh, Dakar di dalal tournoi de lutte communauté économique des états de l' Afrique de l'Ouest muy CEDEAO ñu bëggoon a xam ñaata dëkk euh, lañuy dalal. Euh, fukki fukki dëkk incha allah dinañu fi ñëw. te mhm. fii may waxee yow nii ñetti ñëwagum nañu muy Gambie Guinée Bissau ak euh, Sierra Leone ñoom fi mu ne ñu ngi ci dalukaay bu sali CEDEAO mm-hmm. ñu xam ne euh, ëpp na fukki dëkk euh, yeneen dëkk yi nga xam ne limuñu leen ci lan moo leen fi lan moo leen tere bokk ci tournoi bi dëkk yooyu dañu am ay jafe-jafe ak kuréel bi ñu wax CEDEAO ba mu aj leen comme yan déjà comme ñeent lañu mm-hmm. Mali Guinée Togo ak Libéria ak Libéria mm-hmm. tey Mali uh-huh. ñooñu dañu am ay jafe-jafe ak CEDEAO bu leen bu la ajee ci lépp lu muy yëngatu rek daf dang ci daf ciy bokk te comme que lii tournoi CEDEAO la ñu wax donc ñoom duñu ci mën a bokk mm-hmm. Mali ak Guinée euh, fës nañu ci li nga xam ne moom mooy instabilité politique yi am seen réew waaye Libéria ak Togo ñoom lu a ah, loolu nag euh, madame xamuma ci dara ndaxte loolu affaire euh, man sax ci ci ci ci ci ci jamono yi laa xam ni sax CEDEAO dafa ajoon ñaari dëkk yooyu. Mhm. Togo ak ak Libéria xam mhm. waa xamuma nag vraiment ñoom. Euh, ci ci lan la ñuy sukkandiku pour def ko loolu moo xama ci dara. Dakar di dalal maanaam Sénégal di dalal lan moo doon lu yees ci tournoi bi atum ren. ah tournoi bi bon lu ci yees. Euh, loolu moom mënuma ko mënuma ko wax parce que dama bëgg mu nekk loo xamee ni dina tax nit ñëw seetaan si. Mhm. en tout cas daal bu soobee yàlla daal dinañu wane daal euh, benn lu bees daal. comme ni ko sëriñ bi doon waxee dina ala dawame daal bu soobee yàlla. Hmm, d'accord da ngeen di nëbb daal pour nit ñi ñëw. waaye tey wax feeñ. <laughs> ñu nekk ci jamonoy mbas euh, ngeen fas yéene dalal lu toll noonu ci délégation ndax matuwaay yi jël ngeen ko ba mat sax. waaw euh, matuwaay jël nañ ko. ndaxte ñun xam ne ñun dañu nekk ci jamonoy mbas. Hmm. léegi délégation yépp aéroport la ñuy ñëwee. te xam nga aéroport aussi am na nu luñ fa tëral. Mhm. donc bu fekkee ne da nga wàcc ci avion bi da dañ lay testé ci saa si. Mhm. de may xamal ne ne aussi nag ñi ñëw ñëpp ñi ci ëpp ñoom dañu ñàkku ba pare seen dëkk. Mhm. def seen test seen dëkk ba pare soo jël avion ñëw fi ñu testé waat leen. waaw képp koo xam ne rek bàyyi nañ ko mu génn rek xamal ne moom. wër wër yaramam daal macha allah kaar. tey Sénégal di ay kàngam ci wàllum euh, bëre Nigéria ku ko tudd xam ne euh, yàgg naa def jaloore ci mbir moomu la donte beraluma ko loxo mais bon yàgg koo dégg moo taxit ma tudd ko euh, tey ndax Sénégal am na ay chance ak équipe bi nga xam ne moom ngeen ngemb tey pour ñu jongante ji ah, Sénégal kañ moom tabar fakal macha allah. Hmm. ndegam daan daan dem dëkk jàmbur di fa jël ay raaya masama nag ñun bu fekkee ne ñun ñoo ko organiser ñun kañ ñun li ñuy ñaan yàlla mooy catégorie yëpp lépp lépp lu ñu teg rek ñu ko ñun daal ci loolu la liggéey te boo ko gisee ren def nañu loo xam ne defe naa ni gulet la équipe nationale bii mooy ñaareelu ñaareelu regroupement bu mu def. Mm-hmm. def nañ leen dans de bonnes conditions xale yi ñoom ñëpp ku ci nekk euh, yàkkamte nga sëgg bëre daal pour wane li ci yow daal. kon daal tàggat ngeen leen confiance baa ci ñoom. waaw waaw macha allah. d'accord macha allah ñun daal am nañu si ñoom yaakaar te xam nañu ni aussi que raay dëkk bi la ñu nar a joŋante te dinañu ci dem ba jeex. waxtaanee jamono ji monsieur Bopp lii di saison de lutte euh, atum ren door na. waaw euh, ndax promoteur yi euh, régulariser nañu affiche yu mag yooyu nga xam ne ñu ngi ko daan dégg euh, ñu doon ko xaar tamit te ñu ajaat ko. xam nga mbas mi dañoo aman dañoo amoon benn ñaareeli ñaareeli ñaareeli tëj. Mhm. ndaxte bi jamono yële weesu bi mbas bi takarnaase mhm. gouverneur dafa génnoon ben euh, bataaxal boo xam ne dafa ne léegi daal euh, lépp lu yëngu-yëngu ci tàgg wàllu tàggan yaram dañ koy aji ajandi mhm. léegi yàlla suñu borom dimbale nañu ba nga xam ne mbas mi mi ngi wàcc mhm. wàcc na bu baax a baax kar macha allah léegi nag joxaat nañu ñuñu ñu mën def suñu xeetu tàggat yaram waaye bi mu bi këyit googu génnoon ni léegi dañu taxaw dafa am ñoo xamee ni aussi ñoom dañoo amoon da ba pare joxe woon seen i seen i avance. la léegi nag ñooñu la ñuy may nag ñu jeexal ñooñu nag bu ñu jeexalee léegi nag ci boobu bu boobaa nag la nag ña promoteur nag day ñëwaat nag. daal di nag eh, jël ay date pour que fixe seen i ñoom tamit seen seen i combat d'accord mais fi mu ne ñi ko ñi koy wàcce daal mm-hmm. defe naa ne li ci war a des waratul bari bu soobee yàlla ci combat yooyu ñu aj euh, justement di ko ajjiwaat da nga ciy dégg ñenn ñi ñuy artu naan ñun suñu contrat fii Euh, la yem ak diw euh, te jii ndax CNG donte euh, ñoom du ñoom ñooy tëgg làmb yi mais ñoom ñooy encadré ñoom ñooy gunge ndax tey bu demee ba am contentieux diggante kookule di tëgg ak ka muy tëggal muy bërekat bi ndax yéen am ngeen ci droit de regard. ah oui ñun am nañ ci droit de regard parce que lépp ci ñun la jógee. Hmm. c'est-à-dire contrat bi yow bu ñuy signé ci suñu biir suñu suñu makkaan dañ koy signé. Hmm. te te ñun ñoo ko te te ñun ñoo ko tëgg contrat boobu. waaw loolu tax na tey bu feke ni ko promoteur bi dafa am gàllankoor wala dafa bëgg a dandal dandal date bi. dafa ñuy daf ñuy bind daf ñuy bind lettre. pour wax pour ñaan ñu ko waaye ñun tamit aussi toujours da leen di xamal ni leen li gën a yombal affaire bi mooy booy booy bind di ñaan date di ñaan euh, delloo date baax na nga boole ci. accordu ñaari mbër yi parce que ñoom ñuy bëre mhm. wone ni koy waxante nga seen manager ba ñoom ñu jox leen seen kàddu ni ànd nañu ci li ngay def loolu dafay gën a yombal liggéey bi mhm. parce que ñun aussi duñu basé wu rek ci ñaanu promoteur bi pour nangu ñu dandal bés bi mais aussi dinañu dinañu dinañu jël en considération que promoteur bi wax na ak ñaari manager yi ñaari mbër yi ba ñooñu aussi jox leen seen kàddu te loolu yëpp du ci ay wax lañ koy defee waaye dañ koy bind. Mm-hmm. kawu Ama ah. Baldé Modou Lo ndax am ngeen ci euh, benn jàngat. non jàngat bi mooy promoteur bi bind na pour euh, demander ñu dandal date bi. Mm. ñun tontu nañ ko nee nañ ko léegi indi ñu. Euh, indil ñu euh, accord ñaari manager fu ñu ne ñoom ànd nañu nañu ci li ngay def ñu ngi toog di ñu wax euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy làmb yi yu bëri amul ren ndax mbas mi la wax nga ko taxoon ba ñu dakkal ay làmb yu bëri tey CNG nan lay def tey ci fonds yooyu nga xam ne ñàkk na ko parce que bu organiser ay lutte amaane na mën na cee am li ñuy wax ne yenn fonds de roulement pour muy yenn activité yi nga xam ne da koy amal comme tournoi bi tey ci fonds yooyu euh, comme ni mu ko ñàkkee ci saison bi nga xam ne nul na tey fan la koy jëlee. ah madame nag man lépp lu jëm ci wàllu waxi xaalis man du ko wax. Hmm. am nañu benn vice président boo xam ne moom mooy toppatoo affaire koom. Hmm. ku tudd Abdou Aziz Gueye boo jógee boo ko gisee rek nga waxtaan nag ci loolu xëy na moom li mu la ci wax moo moo moo gën a wér man li ma ci mën wax. moom daal. moom boobu. du ñàkk xam naa dinañ ko euh, gis yi ñu wax nag ci pass sanitaire yi xam naa boobu moom di nga ci mën a àddu pass sanitaire euh, mu jaraloon leen ngeen organiser tey benn euh, ah, campagne de vaccination ndax tey ndax sanitaire bokk na ci li CNG di tegal pour làmb mën a am. Ah, Ah oui bokk na ci kañ bokk na ci kañ day d'ailleurs euh, ci tournoi CEDEAO bi dina am distanciation ak port de masque. Mhm. ak euh, gel euh, à mhm. ah loolu moom ala kulli al foog mu am parce que aussi bu ñu fàtte ni mbas mi fi de. Mhm. boobu ci tournoi bi la waaye tey affiche yi nga xam ne ñu ngi koy organiser ndax tey da ngeen di mbër bu ci vacciné wul du bëre ndax loolu yéen da ngeen koy dëggal. waaw xam nga nag aussi bon ñun bu ñu fàtte ni CNG démembrement état la parce que ñun délégataire de pouvoir ba ñu du ministre ministre des sports mm-hmm. waaw donc ñun euh, jëluguñu dogal boobu te xam naa ne buñ ko doon jëlee rek daa leen ko yëg waaye daal dañuy ñaan waaw dañuy ñaan mm-hmm. bu doon suñu sago daal képp koo xamee ni da ngay bëree daa ñàkku képp koo xamee ni amateur nga boo ñëw fekk da nga ñàkku ba pare moo mm-hmm. tax looloo taxoon ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu defoon benn journée de vaccination à l'arène nationale hmm. jagleel ko famille yu làmb yëpp ñu nag <coughs> mënuñu lu dul ñaan dañuy ñaan dañuy ñaan nañu ñëw nañu ñëw ñàkk nañu ñàkku parce que ñàkku bi moom da aar rek waaw hmm. ñàkku bi moom intere ñëpp la daf lay aar hmm. bés bu ñu ba nga xam ne Sénégal trois quarts yëpp ñàkku nañu bu soobee yàlla daa gis feebar bi mën nañu ba nga xamee ni dina fi jóge ba ku ci nekk delluwaat ci la nga nekkoon. Mhm. ngay acteur bi nga xam ne yaa ngi yëngu ci wàllum làmb maanaam si CNG gi nga nekk euh, tey nga gis ne mbëru sénégalais yi ñoo ngi gën di yëngu ci euh, li ñu duppee MMA lan moo ci sa jàngat. ah MMA MMA daal mm, bu doon sama sago daal. Mhm. ñu ànd ci acteurs maanaam. waaw parce que mbir. bu xew doo ñëw rek sóobu ci. Mm-hmm. foog nga jàng règlement bi ni ñu defee ak euh, ni ñu koy atte ak arbitrage bi defe naa ne daal suñu mbër yi daal li ma leen di conseiller daal mooy nañu gën a jàng règlement bi xam ko. waaw bu bu buñ ko xamee nag soo ko ku ci nekk nag yi nga yaa xam sa bopp. da nga jàpp ne nga jàpp ne dañ cee dem sans o autant ñu jàng lan moo fari xew. a ah, yaakaar naa ni daal bu fekkee ne xam nañ ko itam du lool am nañ ci ay ay ay ay am na am na yu des man daal bu doon sama sago daal ñu bañ yàkkamti bàyyi xew xew bàyyi ko fa daal tegandi ko fa nag en attendant. waaw da nga gis ne dafa teel daal yow bo bu doon sa sago ñu desandi ci làmba gi ñu am suñu réew balaa ñoo dem di wutali tugal ah, euh, ci MMA yi man daal bu doon sama sago daal ñu jéem a seet ñoom nu ñu ñu ñu dese fii di bëri fii daal MMA bi daal euh, man man daal te li may lay wax nag waxuma ko nag ci ci turu CNG man ci turu Adama bopp laa koy waxe mm-hmm. waaw li ma lay wax moom daal man li ma ci gis daal dama ci gis benn genre na naxaate quoi parce que dafa mel ni boo ci soog dugu dañ lay jox ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay nooy neex ci daane ñaari ñoo neex nag ñu soog la indi na punkal yi nag ah punkal yi nag moom dañoo tàng jër jër jër jër jër jër man daal bu sama sago daal ñu dellu ginnaaw tuti daal xaw ko foofu fàtte ko tuuti daal fàtte ko tuuti daal <laughs> waaw ko bàyyi ko fa daal waaw loo xam ne ne daal euh, jógewul ci yow cosaanawul ci yow foowu jàmbur la ñoom foo boo xam ne dafa bay wéq ay non man daal bu doon sama sango daal ñu bañ ci suuf. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax Adama Bopp. merci à toi aussi. Euh, CNG.